sargal dolel ak ndukel bepp jigen ci weer bi ñu leen jagleel ba tax fédération pour le développement de Boune doon ko amal fi ci sen gox ci ci seeni kàddu ñu ngi ñuy xamal ne jigen ñi yeewoo fi ci Boune dañu leen wara a fessel leen comme sen yeneeni morom ci yeneeni gox Boune nekk benn localité boobu dafa nekk bir Kër Massar enclavé wu jigen ñi fi nekk mësuñu am occasion bi ñun ñu juk tay ngir rendre hommage jigéenu Boune jàppale leen li seen morom ñu am ñu am ko moo tax ñu bëgg a taxawal journée bii fësal jigéen waa Boune yëpp récompenser leen jaajëfal leen wan leen ne ñoom seen dund am na njëriñ ci société bi wan leen ne ñoom ak les autres femmes ñoo ne képp yem la différence mooy encadrement ak formation ci lañ nekk ak ñoom moo tax ñu organiser journée bii pour encadrer leen pour former leen pour que ñu mën a dem ci kanam comme jigéenu Sénégal yëpp ak jigéenu àdduna bi boo duggee ci kër yii suba teel doo fa gis benn jigéen jigéen yi ñooy jaayi jën jigéen yi ñooy dem fépp fépp jigéen ñi ñooy ñaw jigéen ñi lépp loo dégg ci liggéey jigéen ñi ñoo ko yore muy marché muy joxe lu ne jigéen buy jóg ci këram borom këram sax day tëgg waaye jigéen ñi liggéey rek la ñu xam. ci sa dama tey la ñuy jóg ñee ngi marché poisson ñee ngi si lujum bi ñee si cuub yi ñee ngi dem Dubaay fu nekk ñu ngi fay dem fii Kayaar fu ne di witi jën kon jigéen ñi dañoo sonn te jigéen dafa sonn si kër ndax boo bëggee góorgóorlu jàppale sa borom kër bëgg mu dëgër am njaboot gu barkeer da ngay def si kër gi suñu borom ko def si kër gi way woro ya yaa ci jigéen bu gatcha nga la ma lol dalu len ñun amuñu dara lu dul suñu doole dem di jaay dem di dugg di genn kër yi di dugg di genn lol moy suñu trip sonno nañu nak way sant nañu yalla kon ko pam musa ñew nak defal nañu waa li mu suñu ko am bu bëgg nañ Sali mi nga xamne moy ministre de la femme mu ñew guest jigéen ñi mariam fay Sall fondation service Senegal, nañu guest gestu jigéen ñi ndax wax deug yalla jigéen ñi bu jambar lañ ci fi dañu neew doole néew nañ doole trop seeni i borom kër ñi ngi def mais liñ man la ñuy def jigéen ñi ñooy xëy fajar di dem ca marché di dem fu nekk kon soxla nañ ko leen jàppale vraiment kon bëgg nañ ko ñëw jàppale ñu loolu mooy li nga xam ne ni moo ñu tax a jóg. kenn ku nekk ci ñoom du ñu xamal ne buun dafa bari lu fi manqué rawatina ci jigéen ñi boole ci di àddu njiit yi pour ñu jàppale leen bu baax. bëgg nañ am ci lépp loo xamante ni Sénégal ñu ngi koy joxe formation amuñu ko financement bi jotuñu si même DER bi dañ koy dégg rek mais les femmes de buun si bëri amuñu DER bi amuñu également commune parce que ñun Kër Massar lañ bokk mais dañoo diviser am na benn parti mu ngi yëmbal nord benn parti yëmbal sud benn parti Kër Massar donc les femmes de Boune elles ne se retrouvent pas xamuñu fan la ñu war a dem loolu nag li koy régler mooy communalisation de Boune moo ñu am commune am benn périmètre am benn découpage yu xam fan lañ mën a pour que les financements muy DER bi muy formation bi lépp jigéen ñi gis seen bopp. Boune dafa manqué lu bëree bëree bëree bëri parce que xam nga Boune ci village traditionnel yi fi njëkk ci la bokk.

mais tey boo leen compté woon lu am que dix personnes sax am nañ si DER bi kon ñun soxla nañ ay formation soxla nañ it ay financement jigéen yi lii leen manqué bare na buñ ko doon lim tey dañ koy lim fii ba suba lépp lu ñuy xaar ci jigéen ñun amuñu ko ñun ñooy jogal suñu bopp di defal suñu bopp tontine di ëlbati di yore suñu projet bopp di liggéey ñuy ëlbati suñu biir ñun loolu la ñu am découpage bi nag ñun buun la ñu dëkk Kër Massar la ñu bokk fi mu nekk nii mais découpage bi dañuy ñaan yàlla président ci boppam mu gëstu waa buun ndax buum dëkk bu yàgg la ay ati at la buun am dëkku lebu yëpp am nañu dëkku paas fii dëkku lebu la fii dëkku ñi nga xam ne ah, yàgg nañ fi mais fii amul dëkku paas ñu bëggoon mairie bi mu ñëw indi ko au niveau de buun di nit ku am pas-pas boole ci di jàppale jigéen ñi ci nu mu waree di kàddu bu buun bëgg nañoo liggéey de waaye doole jën ndox bu ñu may jën dañuy jàngal fi ñuy nappee nga jox ñu jëm napp yi Pam Sa Camara na moom loolu la ñuy defal mu ñu jàppale ubbi ñu ay financement ubbi ñu ay magasin jigéen ñaa ngi liggéey 5-5. ñun waa Boune mosuñu woon am lii Pape Moussa ñëw defal ñu ko kon nag dañoo war a sant yàlla bu baax santaan ko jigéen amul dara lu dul nga bégal ko te bés bii la am ñun amuñu leneen lu dul bés bi kon nag bés bi dañuy sant yàlla bu baax kon ko fekkee nañ ko ba Pape Moussa mu ñoo sargal. bi mu ñëwee def ne ni Boune Wélé war koo mel lan mooy solution bi ñu ne lu ñuy def mu Moy fédération bi mom da ko taxawal wo ci ay nit ngir mën encadrer wa buun ngir problème buun yi enseignant enseignement Moy santé moy éducation moy sport moy les femmes ñu xool dans un cadre comme fédération bi nan lañ ci mën a ngir régler ces problèmes là. Moussa Camara di njiitu fédération bi di ñu xamal ni nam sen doole wala sen xalaat. fii la yem waaye jigéenu Boune mérité nañu lu raw lii. ñun euh, dañoo nekk ay acteurs de développement bëgg tamit tey par exemple développer secteur bi nga xam ne moom mooy Boune bëgg tamit lépp lu ñuy xool feneen di ko jéebaani feneen di ko gis tamit suñu dëkk. di ko defaral suñu jigéenu dëkk tamit dafay gën tey par exemple su ñun lii nag mu nekk première édition ñu ñoon yàlla yàlla may ñu ay ati ati ati ati at ñu mën di ko fekkee sax parce que tamit jigéen buun mérité nañu lu nekk jigéen buun mérité nañu lu gën a ëpp lii mais xëy na tey suñu xalaat wala suñu doole ci lii la mën a yem fii la ñaam ñu ne fas yéene ñëw taxaw ñoo tamit sargal leen ñu gis seen bopp tamit ci biir bun da ñom dañ doon waliyaan rek dem di wuti fu ne waaye tey nag toll na nak seeni njabot ak seeni doomi bop nak faas yéene defaral leen pour ñom ñu xamne ne tamit ñoom dañoo bokk si dëkk bi. ci ay cadeau mu ngi ñëwaat ci yene bu ñu am ngir soxali gox bi di buun. waaw projet yi nak du jeex ndax xam nga ñun dañoo nekk ay acteur de développement bon ñu am intention tay par exemple tey defaral euh, dekk bi. bëgg a liggéeyal dëkk bi mais lépp nag teguñu ko si sunu xam-xam sunu wala teguñu ko si ay moyens yu ñu am mais dañu ko teg si mbooloo te xam nga lu ñu naan mbooloo moom mooy doole. donc tey fii mooy wax yow nii bés bu ñu amee tey par exemple ku ñu mën a jàppale si cadre boobu noonu tey xëy na loolu ñu yomb ñu mën a tey par exemple di atteindre suñu objectif ndax suñu objectif moom mooy tey par exemple tey buun bii nga xam ne tey moom lañ nekk nii bëgg nañ fi def tey par exemple tey ay activité pour la jeunesse

tamit du loo xamante ne tey par exemple dañ koy utal euh, app wala ne ko lii mooy suñu feuille de route tey bu yàlla defoon tey par exemple suñu xeex bi ñuy xeex nii moom mooy am la commune bu ko yàlla defoon tamit ku fi yàlla mën a teg nga jiite tamit ak fekk euh, fédération bi day taxaw gunge la jàppale la pour nga mën a yeggale sa mbëbët ndax ñu tam dañoo am suñu feuille de route suñu feuille moom mooy tey par exemple tey ku ñu soqali dëkk bi ku ñu jàppale pour waa dëkk bi donc loolu bokk na tamit suñuy projet te wax dëgg yàlla loolu dinañ ci jéem a taxaw xar suñu tànk tuba incha